hélas ñu ngi lay siyaare di la ñaanal jàmm tey sàkk si yow ñaan di la ñaanal xam ne moom la def nii mu def ko yàgg koo def ay ati at mhm. yàlla fi mu ko def daf faa war a def mhm. nit ki nag la nga war a def boo ko defee fa nga ko war a def rek mhm. sa jaan wàcc na kon ñu ngi ñaanal ñëpp di la ñaanal bu baax di ñaanal cameraman di ñaanal réew mi jàmm tey ñaanal suñu bopp jàmm tey ñaanal suñu bopp jàmm muy kàddu nuyoo yu am solo waaye ci li nga xamante ne moom lay dooree rek mooy jamono ji bokk nga ci influenceur yi nga xamante xamante ne sénégalais ñu ngi leen bàyyi xel bu baax a baax a baax naka ngay dundee succès bi ak bëgg bi nga xamante bëgg dañ la ah xam lu yàlla dogal rek te xam ne tey yow yaa xew mais jàpp ne ëllëg sa morom lay doon bul jàpp ne chaque fois yaa nekk ci rythme bi da nga fi nekk fi rek kon boo ko dee xalaat rek ku ñëw da nga a ànd ak moom te xam na ngay waxee ak moom loolu képp la du leneen waaye bu fekkee ne nag da ah, nga yaakaar si njekk ak tranga xam ne tey ji nii ma ñëwee nga woo nii am na ñu fi nekkoon ñu leen daan woo tey ñooñu nekko fi ne mais lëx tamit dina fi jógewaat ñeneen nekkaat fi noonu lay li la dugal ci TikTok parce que gis nañ comédie bu baax bi nga xamante ne yaa ngi koy def lëx 100 pour cent comédien man li ma ci dugal mooy man ay cité laay jaay. cité mooy mbari ween mooy lan mbar ween <laughs> mbar ween mooy jigéen ñi takk man yooyu laay jaay léegi nag dama koy jaay bu ma ko jaay dama naan lëx-lëxi leen samay bagage salfaañi leen sama yëf seeni loxo sama biiri bagage def leen ma ndànk bu leen ma gaañ kenn ku ne yaa xam nañ koy xalaatee nag waaye man noonu laa koy jaayee voilà léegi nag bu ma koy waaw non bagage yi mooy comme par exemple xam nga man bagage yi dama koy juub boo jugee. waaw ñu ne sa loxo sa biir bagage da jël loxo dugal si biir bagage. def nii jeexar bi ba gis li nga bëgg. waaw nga doog a am. waaw des fois dama koy wax ne benn jigéen. reetaan ba doyal. daanaka sa bagage yi de buñ ko lëx-lëxee nga yàq mu ne ko foog. yi foog nday mbaye ko moom. sa non aw ma aw ma gel sax aw ma ko jinax ju ma ko jàpp mu wëri jeneen jinax ndax man moom cat jooju dama ko am waaye ku ma ku wax loolu rek dama naan la euh, li ma yor nday mbay ko moom hmm. mais aw ma gel bu tudd nday mbay aw ma nu ma nday mbay mais dama leen xamal leen xalaat ba tax ñuy wax am na ko ko moom hmm. waaye li may jaay di lëx lëx li ak mbari ween hmm. voilà daal waaw jaay jaay su fekkee da boo gisee am na màngo bu ko jeexal papaaya doomu limon kuy doog a judd léwén kuy doomu limon boo ci yor boo ñëwee ma jaay la. yooyu mooy lan tekkil ñu ko. papaye. Eh. mooy ween bu mag bi. <laughs> yaa ngi de doomu limon mooy bu ndaw bi. Mhm. taab mooy bu ndaw bi nga xam ne tey jii boo bëggoon a jëfandikoo. mënoo jékki-jékki tëb da nga mel ne ko nii. ba mel ne lu ko wommi. daal di bàyyi mu boo ci yor rek jàpp ne bul yëm sa ba jàpp ne aw ko. Mhm. waaye bul xeeb sa ba jàpp ne tamit yoruma ko. Mhm. wàllum ween boo ci yor rek ci tee bu yor lum tuuti tuuti tuuti am naa ci tee bi waaye lum rëy rëy ba mel na goj tamit yor naa waaw. nga ci préféré waaw. ngi <laughs> maa nga bëgg a jeexal. nga mooy. waaw ah, bëgg a jeexal mooy bi nga xam ne tey jii bu yàlla dogaloon nga ci suturlu. pour nga nooy nga gi doog a mën a nooy. Hmm. waaye boo nee ci digg bi doo mën eh, hmm. man boobu lay wër. maa ngi ciy nuyu sama benn xarit Mousli Fall. ah ko yor. ah a ko wax de Mousli Fall may naa la ci dégg nga. ma ne ko may naa ko ci maa nga bëgg a jeexal mooy mbari ween yi may jaay may naa ko ci. maa ngi si kan Mousli Fall. Mousli Fall may naa ndax dégg naa maa nga bëgg a jeexal nga yor may naa la ci man yooyu yow yooyu damaa neex. waaw sérieux woo oh, euh, euh, yi bëgg nañ la trop trop trop ci sa communication aussi jëm ci ki nga xamante ne moo di Ousmane Sonko. Mhm. à chaque fois yaa ngi def say vidéo mhm. yaa ngi koy euh, gërëm yaa ngi gis taxawaay bi mu am sénégalais mais ba tey nanguwoo koo bëgg. waaw xam nga da ngay jal jal jal waaw jal bu yàlla jal. Mhm. da nga ko jar rek te xam ne moo fi ne. Sonko yàlla dogal na moom la fi yàlla teg. Sénégal yi bëgg nañ ko. réew mi bëgg nañ ko. maanaam nag Sonko ku wax ci moom du ñaaw. jàppal dañu rëq sa ndigg. wala leneen mën na laa dal man nag bëgguma ko rëq sama ndigg bëgguma ko ma bañ moo tax may ànd ak moom mais ànduma ak moom ngir sonkoo bëgg laa ko def and damaa ànd ak moom ngir ñàkk pexe waaye nag bu dee woon ba yom la woote jot hmm. du ma ko jox de hmm? keneen laa ko jox tay sax xanaa yëgoo ne maa ci moo gét yaa ngi ci kan moo gét waaw jamono euh, koy xaar ñëw ci réew mi bëri na nag maa ngi ci moo maa ngi ci moo gét tay moom laay xaar mu ñëw ma mbaq sama carte d'identité hmm? ne ko toogal waaw moom ngay xaar moom laay xaar war naa wax naa sénégal yëpp ne man moo gét la àndal Ousmane Sonko nag yàllaa ko fa teg. moo yor bës bi moo yor actualité actualité bi. Hmm. moom la ñëpp yi war. ku waxat ci ma amul loo wax. Hmm. amutoo leneen loo wax léegi moo fi ne rek léegi nag ñu topp ci rek di mele mele rek waaye nag wax dëgg yàlla. Hmm. ànduñoo ak moom de moom. sa ndaw yi nga dawoon keroog ci manifestation Mbàkke. man gonek ba wallaax. waaw dëkk. daanaka mbëll suma ko daan dégg bal lii bu bënn la woon. pono bu bënn bënn. wala bal bu bënn. léegi boo dee ba dégg ay mbëll yoo xam ne xamoo ñu génne saxaar da ngay daw. da te man magum murit laa. daw yomb. ni ma mën a def mooy teel samay téye samay daal fu ma xool fu gën a yarax ma xam ne fii moo gën a yarax ma taxaw fa hmm. daw jotee ma wax lu ma jàppee ma xam ne wax lu naa waaye nag lii la yàlla dogal ci man jàpp na ma. jàpp waaw. waaye daal dinaa jéem a daw moom. di nga a daw waaw te ci ngóor la bokk. Sénégalais yàgg nañu ko. voilà boobu ba léegi waaye aussi du ma ñàkk tamit ma laaj la sa relation ak ki nga xamante ni moo di Ablaye Diop Khass ak euh, Soumboulou ndax it euh, euh, jamono yi amoon na ay coow yu amoon seen kër mais ñu bëri ne nañ ba ñu yëgee divorce bi si lëx lañ ko yëgee woon sa relation ak ñoom ak wax ji nga waxoon. non Ablaye Diop Khass moom kooku day kenn ci man. Mhm. ndax yàllaa nu boole. ndax damaa nekkoon ci loolu méttee méttee mhm. mu mu génnee ma ci. tey ji ma ma mën a sol jas ndeer nii. Abdoulaye Diop Khass ci la bokk. ndax ni mu ci bokkee mooy ñu bari nag dañuy jàpp ne lëx Abdoulaye Diop Khass mi mu nekkal da koy nekkal pour di ko promotion di ko may promotion Abdoulaye Diop Khass nee na ma lëx mën a ko mbàkk mënoo maa may bës. waaw mënoo maa may promotion mënoo maa may fu ma éggutoon. Hmm. lu ma amutoon ci faj ba heure bi hmm. man mënutuma ko am. lii la ma Khass wax dama ànd yow pour dimbali la pour jàppale la te yàlla tax te man dama cee gis sama bopp ndax dama am fu ma dëkkoon fu ma dëkkoon samay mbokk laa fa dëkkaloon li ma wax bu la neexee ngeen jël ko mu metti woon lool fi ma doon tëdd si peron laa bu ma fa tëddee nit ñi kuy dem sa duus ba mën ngay jékki dem sa duus ba te bu ma ma dajal nga dama lëx lëx ma guddee ci peron tëdd ma ñëw waxtaan ci xaas xaas ne ma xaalis baa ngi nii ma dem euh, parcelle sama benn xarit tudd Baye Góora wutal ma néeg bi néeg bi quarante quarante mille la. Mhm. mu ne ma caution bi xaw ma caution lañ ko xam damay jëngu daal. caution waaw mu ne caution bi. Euh, quarante mille la caution bi cent vingt mille lay doon. léegi man yoruma woon jamono boobu. après ci laa dem ci xaas wax ko ko bi ma ko waxee mu wax kaatim ne ko jëlal quarante ne ko jox cent vingt mille. Mhm. léegi bi ma ko joxee ne ma nag weer ak morom ja jege nan. Mhm. ba bëggee jënd añ jënd reer jënd ndékki dana métti ci yow. sama kër nag am na néeg bu fi kenn dëkkul bu la fi. léegi yàlla dogal bi mu waxee loolu ma jël xaalis ba joxaat ko ni ko téel ma dem waxtaan ak samay mbokk ay mbokk nag ñaar la da ngay wax bii ñii d'accord ñii bañ nii neñ ne demal ñii ne ma bun dem ndax am na ñoo xam ne na bañ ne ma ab sëriñ tareex day ñaan mën na laa sacrifier man tam ba ma ñëwee loolu laa ko wax de mhm. dama ne ko xaas bam naa ma ne ko samay mbokk am na ci ñu nangu am na ñu nanguwut nee nañ ma yow sëriñu tareex nga da ngay ñaan te da ngay faj ay rab dañuy ne danga may tayle xaas ne ma lëx ma ne ko mbàkk mu ne bis boo demee ba gis fi ñu ray fa dara te lekkunu ko su la neexee mën ngaa génn kër ga dip boobu ma fa ne ak ginaar gisuma fa ñu ray ko te lekkunu ko hmm? loolu moo a boole a xaas hmm. xaas man maa ko toppee intérêt mais toppee mu ma man maa ko toppee intérêt ndax man xëyu xëyalu ma ko lu ma ko defalu ma ko lenn mhm. maa ngi ni jógee fa nekk nekk fii Liberté si sama benn kër xarit di fa faj samay soxla tey ji ma dem bëgg a demaat kër xaas ma fay fa dëkki fa mhm. ma ko góntalu ma ko kon mhm. ànd gi ma ànd xaas sama njariñ la mais du njariñal xaas waaw nii la demee coow li amoon fan yi si nag dama yaakaar na ngay dem nga sa xaas ba nga xam ne moom muy nday lam bi léegi non non mais xam nga lan la mbéjum kanam ku ne yaa koy fajal sa bopp. Hmm. xaas moo am problème ak sa nga wax yaa ko waxal sa bopp. da ngay dem waaye da ngay dem da ngay dem ci xaas nga ne ko xaas hmm. ba mu ne la xaa nga ne ko sa diggante sa soxna nan la demee woon. lu mu la jox nga gëm loolu man nag lu ma la jox ay fen la. kon li ñu ci doon wax sénégalais kon mën nañ ko ah, jàpp. loolu yaa yor sam xel di xalaat léegi yow noo ko xalaatee noonu la doon wax sénégalais ay lan la woon. non xaw ma eh. yaa yor sa xel di xalaat mais daal li nga xam. ñu ngi ci jàmm rek. voilà jàppale daal jàmm njëkk jàmm mujj ñu ngi ci jàmm. ñu ngi leen di ñaanal jàmm daal di leen ñaanal jàmm ak salaam. Mm-hmm. sëy boo mën a gis ne am na problème. mu siiw ak mu ñàkk siiw. Mm-hmm. ñu xam ak ñàkk xam voilà ñàkk xam ak ñàkk xam mm-hmm. mais sëy bu amul problème amul fenn sëy nag ñaar la koo mënta muñal mënoo nekk ak moom muy ko jigéen ki muy ko góor gi sëy boo gis mu tas tamit kenn ka daa ñàkk mën a muñ mm-hmm. waaye bu ci amee kenn ku mën a muñ sëy ba du tas la xew nag man xaw ma mm-hmm. lañ jotee xaw ma te jiw maa xam bu fekkee da ngaa bëgg a xam xew mm-hmm. da dem ci Abdoulaye Diop nga ko caméra wala ki nga xam ne mooy soxnaam muy sumbulu nga dëpp mu la wax nga gëm man amul lenn lu ma la a wax man sénégalais déggoon télé rek na damm nga yow bokkoon nga waaw man jàppal mm. am ñoo xam dañuy am ay sëy yu problème ndax euh, maabo bi mu fi amee problème génn naa wax sama wax bopp tey jii bu fekkee ne xaas yàlla daa dogal mu am nekk ak soxnaam mhm. dara am ca ak lu mën di doon su ma cuxut mhm. dañ naan lëx naa feeq la ndax suy jàmbure ma ngi ci wax mhm. patron nangam ak nangam kon dama ci wax mais la ma ci dama ci wax ngir sama xalaat bu rafet mais waxewu ma ko ngir dama ko wax ngir xam-xam ndax kat xaas mu nga ca kër ga maa ngi ca kër fa mu ne su ma soxla wu ne ma lëx kaay du ma ko fa fekk lam nekk fa nekk ak soxnaam moom moo fa nekk ak soxnaam leneen lañ fay dund man xaw ma lu ma la ci damay fen waaw lu ma la ci waxaat ne la lii moo fa am hmm. ay dul la kon nañ jàpp na nag comme lu mu ci waxaat nag ay nar la ah. mais aussi tamit temps yi ci ginnaaw sénégalais mere woon nañ la ndax it da fay génnoon di lëmbal dundee coowu lëmbal yooyu waaw adduna moom ñaar rek kenn ko sa bopp ak ni nga ko centré hmm. man damay lëmbal hmm. damay fecc ndax man xale laa gone laa man la neex moo koy def xam nga adduna bu fekkee da ngay dund li bëgg def lu neex ñëpp bu yàgg nga doon na fekk adduna li am solo da ngay def li la neex ku mu neex nga sante ko yàlla ku mu neexoon mu muñ te xam ne daan nga def des fois nit damay woo ne ma lëx mën a mu ne ma dama lay mu ne ma lëx mën a ko ne ma lëx mën a ko bi nga def tey juum na ma ne ah naa def vidéo yu la neex mu ne waaw ma ne ko jëlal démb ñax ci tey hmm. bis boo dëlee jëlee démb ñax ci hmm. dina mën neex mais bu fekkee da bëgg à chaque fois loo def rek pour day neex nit ñi nax sama loolu mënta hmm. ndax yàlla mi sàkk sax day def nit doomu adama bi nga xam ne simple la waroo am li la neex ci simple doomu aadama mhm. mais jëmmi Sénégal day ñëw ngay doomu aadama comme moom mu ne ne la yow li ma nekk nga war a ne mhm. wala li may dund nga war a dund non mhm. man li ma gëm laay ne li may dund ci laay ne ku mu neex xayrun ku mu neexul xayrun en tout cas du ma saaga du ma ñàkk kersa nit du ma wax lu sama yónni wut waaye daal dinaa kaf da su ma aajoo ma fecc ndax Sénégal li tax mu naqaree nekke mooy dama daan soli bloc di fecc ñu ne ma lëx war maalal yëre bi ngay sol ma dindi sol sama seleen maag sama kiloot ñu ne war maa la sa jëmm kon Sénégal pour nga man fee ne yombul kon defal li nga bëgg ak li nga gëm li si def nga bàyyi ko suñu borom mhm. nit ñi di wax nag nan wax ya bokk ñu jëf mais bul bokk ci ñuy wax man ci ñuy jëf la bëgg a bokk mais bokk ma bokk ci ñuy wax daal hmm. mhm. euh, sa wàllum euh, mbëggeel gi wax nga ko sànq hmm. problème mu mbëggeel nga am man moom wax dëgg yàlla problème mu mbëggeel am ndax li tax ma mooy sama xol daal xaw ma dañ ko yàq ko ma hmm. jinax ju ma dàq daal ba jàpp ne war naa koo jàpp mu rëcc dem dugg si jeneen jinax waaye nag man du ma am déception si jigéen hmm. li tax du ma am mooy bala maa dem balay miin balay bëgg nga may baax hmm. wari naa keneen ah. <laughs> du fa nekk naan la nii nga may to nap may bañ a yi nga topp la naan la mon amour moom bébé di jooy xalaatuma ko man kay danga naan ma waaw ñu ànd nga wan nga ma xam ne yow mii am nga foo jaar bala nga ne ma poy ma ne poy hmm? dem wari jeneen jigéen ñi bari nañ te te nduxaanum Sénégal moom jurum taxi la rek ko waxaale nanguwut demal ci keneen bala ngaa dem da nga am prix ku la mën a yóbbu mm-hmm. dëgg la affaire yi jëru complexe jërul métti maanaam sama ndoxaan ne métti lu ma ko jigéen bu ñëwoon tey ne ma dama la bëgg man la waaw waaye nag da ngaa yàgg langaamu ci ñoo xamante ne da ngay toog sa TikTok dama leen a bëgg dama leen a bëgg ay basketteur rek yow ku ne bëgg nga ko fi. loolu lépp mooy mm. bayu àll laa rek bayu àll moom amut kilifa amut buum fu mu neex dem voilà man jàpp ne bayu àll laa rek mbuus guy naaw laa fu ma neex laay dugg bu ma dajee gaynde ma xam ne loolu la yàlla dogal ci man ndax doomu aadama moomul boppam yàllaa ko moom waaw bu ma cere ma xam ne foofu la sama bakkan war a yem waaye jàppale daal jamono ji ñu toll Yacine Diop moom laa jox sama bopp waaw waaw axalaftu nafsi googu ñuy wax hmm. Yacine laa ko def waaw moo tax man nee naa ko setam gauche setam droite ay loof yu xàppi ah, bés day tuuyu waaw moom ma yóbbu rompoye ax ah, croisement ma yaay yooyu ada defal ndànk wiraas yaa may gaañ moom Yacine Diop hmm. waaw fam ma fam fa mu toll ci man. dafa sori. waaw mosuma koo gis. waaye loolu bëggeel la wala seytaane la wala lan la. yàlla yàlla la rek bëgg koo gisut mais bëgg naa ko man te yaasin tey bu pare woon pare ne ma lëx ma ne ko mbàkke mu ne ma. li ma bëgg mooy nga sëyal ma. ma xëy ñëw ñu muur ma. ma woo Pa Asid mii mu naan ma dana ko nangu ne dana ko nangu ne dana ko nangu macc nga fi kaani yéen nga fi xorom da dana ko nangu Pa Asid mii laay moom ko defal may sëy ma nañ ma muur jaral na ko adduna li am solo mooy doomu bu ne li li nga nekk na doon sa farata. li nga nekk li la xam nga tey ji benn nit dina jógee fii jël fi jigéen yóbbu Amérique. Mm-hmm. du ne daa sëyi. mais tey ji bu ma jugoon nii jëm Touba Gueye jëm fa ñu ne daa sëyi. Mm-hmm. mais pourtant ñaari sens benn la rek. dem dem la rek dem dem la. Mm-hmm. mais bu fekkoon jigéen daa ñëw ne la li ma bëgg mooy nga ñëw fekk ma Amérique. dañaa ne moom di jëkkër jabar di jël na ko yóbbu. waaye duñ ne daa sëyi de. ndax am nañ complexe ak américain yi. mais bu fekkoon damaa jógee fi dem dem Touba fekk ko. dañ ñaan lëx de daa sëyi ñàkk fayda bàyyi nañ mbokkam sëy kon nag doomu aadama bépp lépp bépp doomu aadama lépp looy def mhm. na doon la neex waaye bul def la neex nit na ndax li neex nit ñëpp mënta ne mhm. man li may def mhm. neex na ma man li may def bëgg naa ko te yaasin pare naa pour jox ko saa jëmm ji lu mu wax laa wax bu mu xut wax ne weex na mën a tàll bu ne ñuul na mën a kukk bu ne xonq na mën a cur lu wax laa wax yaasin bu la ne dañu dem si Sonko yaasin yaasin barke alxuraan bu defoon wiir woon ne ma lëx mën a ko mbàkk mu ne bis ni ko tey ànd ak <laughs> kenn du joxe bopp rocc làmmiñ waaw waaw. ni ngay baax na. man noonu lay bëggee waaye nag dama gaaw bàyyi de ciment laa damay tooy waaye bu ma yàggee man damaa dem yàgg mu rocceeku waat bala maa wow hmm. man damaa rocceeku hmm. waaw man daal bëgg naa ko ma yëg bëgg naa ko ma faal bëgg naa ko ma respecté hmm. Yacine daal nee naa ko setam gauche setam droite I love you waaw bi ma wooyee ba ma wooyee téléphone nag. déggante ngeen yéen déggante na téléphone mu woo ma ne ma my darling sama xol bi seet dugub bi ma ne war a ko mboot my darling nga ne la. may darling noonu ma ko waxee sama xol bi seddu guy ma ne war gu mboot. barke borom Tuubaa Mbàkke. da boobu xool dama koo dégg téléphone. billaahi wallaahi taxalaa bi ma Yaasin wooyee ne ma may daale ma ne ko koole mu ne ma Yaasin Jóob la. barke alquraanu karim dama ne alu di jooy sama rongo di que nekkul di gént tamit yaakaar ne bés jigéen la. Ah. man góor laa. est-ce que amuñu la <coughs> naa ne. Yaasin du am ku ma mën hmm? naa am ku ma ëpp xaalis ku ma dàq sañce ku ma gën a rafet waaye ku ma gën jikko du ko am doomu aadama bu ne nag hmm. bu dee taar yàllaa ko joxe hmm. bu dee sañce wërsëg la waaye bu dee li nga xam ne mooy xool kenn ku ne ko kereel sa bopp dëgg la diw mii daa ñàkk dooma dooba sa defay doomu aadama bi la waaye diw mii ñaaw na yàlla la waaye jëmmi li nga xam ne ni mooy sama xool bii ak sama jikko ji gëm naa ne sénégalais benn sénégalais gënu ma xool gënu ma jikko dëgg te sama jikko lay ànd ak moom. nit nag boo bëggee ànd ak moom da jël sa jikko. Hmm. da ngay xool ci benn jikkoom bi la neex ci moom. nga ànd ci ak moom mais bu fekkee ne jikko bu ne. Hmm. nga bëgg cee ànd moom doo ànd ak kenn sa baay sax bi nga bi la jur tey mu mel nii ëllëg mu mel nii ndax ñàkk matuk doomu aadama la. kon nit boo bëggee nekk ak moom da xool benn jikko bi la neex ci moom nga ànd ak moom. macha allah ci li ak yow nag mooy chaque jour nga dégg ko ci tiktok bi. sa ñaawaay bi loo ci tontu. ma ne leen yàgg leen wax ñaaw a gën dee ñaaw a gën abbi doom te ku doon sàkk sa bopp. Mhm. yaa dàq ñëpp. Mhm. man lëx am naa fulla la ju mat sëkk ak mat ju mat sëkk. Mhm. barke Mouhamed bu ma yàlla ne woon lëx ma ne ko mbàkke mu ne ma xoolal na la neex nga mel ko. waaw ci dàq. waaye comme ba mu may sàkk. tëggul sama nday tëggul sama baay. dafa xool rek na ma neex mu sàkke ma ko. man ni ma mel neex na ma. ndax am na ko xam ne bëgg naa xool mënut a xool. président kan la. Ah, waaw yeggalil rek naa si ñëw. fàtt na sax ma toll. mu ne ah, président day def discours tey. président ban Macky Sall. waaw ah, ndax yaa ngi ciy xaar mu wax ne day bokk troisième mandat wala du bokk. ah man wax dëgg yàlla yooyu dama mu ci xamul daal bu ko bokkee bokk moom la ko waxee bu bokkul moo xam man sama yoon newu ci man daal naa fexe man di dund di lekk ka naan di sant Sëñ Tuubaa leneen sama yoon newu ci. tëj gi bëri na de. man nag damaa ragal jël vidéo bi ma def tey xam lu ma wax mm-hmm. Antoine foo man di ne mm-hmm. bëgg naa xamante yow ngir lan yaa jiite police yi mm-hmm. gendarme yi ku leen jiite. lépp moom la moo jiite gendarme yi. ah même ah, tamit moo leen jiite. voilà man nag damaa jàpp ne gendarme la jiite. Hmm. waaye comme moo jiite police jiite mi nag sapeur pompier ku leen jiite. moom la moo yor lépp yow wax la moom képp moo la jiite. comme entamate na daal comme yaa jiite ñëpp mën la pare naa pour nekk ci hmm. ndax man tapet laa damaa ragal man mu wax dëgg yàlla. Hmm. wallahi alxasimi su ma rombee policier. te nuyu ko damay jàpp ne ñàkk naa ko respect ngir ragal ko barke Mouhamed dama ragal policier. Mhm. tey jii policier bu ma romboon fii. Mhm. jëluma sama loxo bi nuyu ko wala ma ne ko eh, sëñ chef. damay jàppee ne man sama jëmm eh, xaawi naa suturaam. Mhm. wala defuma ko la war. moo tax ma ko ragal te comme Antoine moom la yàlla dogal mu jiite leen damay dem tafu ci mu xaritoog moom. ngir bu ëllëg bu ëllëg jotee ba yàlla dogal ñu ne kat lëx def na dara. Cheikh Bara Ndiaye nee na Antoine nii lay waxee waaw waaw bàyyi ko bàyyi ko bàyyi ko comme noonu noonu noonu waaw bàyyi bu ma defee dara boobaa dina mën a taxaw ne lëx xarit la bàyyi leen ko ñu baal ma loolu hmm. daal la jublu hmm. en tout cas daal temps yi hmm. man moom lépp ma may jàmm maa ngi ca waaye lépp lu may xañ jàmm daw naa ko macha allah kon fii laa ne am a di kontaan bu baax a baax di nuyu ki nga mooy sëñ Bada Kéman di di sunu moo tax ñu ñëw fii ñu xarit di nuyu tamit Sall mi tax ñu ñëw fi di kontaan bu baax ci li nga xam mooy interview bi di kontaan ci bu baax a baax di kontaan ci cameraman yi di ñaan yàlla guddal fan yi te wéree cër yàlla musuñu seytaane musiba ak balaa lépp loo xam ne ragal nañ ko daal yàlla buñ ko gis te yàlla buñu gàtt fan barke Muhammad